waaye benn bopp. te soog. diggante naa Idrissa Seck tànnante ci ko. ci Zik FM di journalu faits divers suba su ne suñu tërë altine ba àjjuma tës di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. man way naa laay yore dem yore wetal nga ma man a wey naa laay yore dem nga bay ma man a wey naa laay yore wetal nga ma Yola mini yola asalaamualeykum. mu aleykum salaam. ah tey siif nga de. Eh, waaw tey da koo siif. wa rahmatulahi taala. groupe Nokos. Mm-hmm. sëtuma bu sa ab sambaay. Mm-hmm. ñoxor kuli ab sambaay. ak coro kuli ab sambaay. ak ak Birima Daali Njaay Mbaay muy seen maam. moo daan way taayaani dammeel yi de gàddu drapeau ba. jiitu ca kanam jiitu ca bal ya. géer yaa nga sa ginnaaw xanaa dañoo am fit. Mm-hmm. waaw yéen rek am fit. fii daan nekk te am fit ku nekk rek. Mm-hmm. géwél lay jàpp ñaa nga ca ginnaaw. c'est bien. Mm-hmm. wa barakaatu hoo hoo mantulaay cubbundooy laay maxtaar séri pap ku ko yeb rek daf fekk muy nelaw wala mu sol garaam bu ba. wallaay ndeysaan. commencé jamono na ci yow xel. ku lay fonto de la fekk nga ma bët ku lay fonto la fekk ne janj ne la lay wax rek. man ku lay jàpp de fekk ne janj ne la. baax na lay Penda. ak ak. dëgg neexul. kooku noonu. borom gàmmu gu rëy gi. dëgg neexul a maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa ah. barakaatu Chimère Diop mu sëriñ Saliou waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Sarr namu nañ la waaw ah, naka umra gi alaaji Cheikh ah. alaaji yaa ngi umra ñun ñun demuñu fees demuñu màgg ñun tamit mbay ñun nag ah gi nag wax fa dëgg ñun xam nga ne. tële point com koor gi ah? fees bi waaw li amoon. amoon nañu ah, un million pour dañoo xaar dañuy xaar moo tali ah, million mën nañoo yóbbu. fees wax nga dëgg a un. million mën nañoo yóbbu fees de déedéet. mais billet bi billet bi quatre cent mille la presque Maroc. waaw ñoo loolu ñaari nit la. waaw waaw. ñu dem ñu dem fees nga naan ñu ci aw fa dëgg neex yàlla xanaa nag xanaa nag xanaa nag deux millions waru ñoo mën a tëna nitu yàlla ba mag boobu ñu mottali suñu benn million bi ñun koy fees baa màkkatal mu karam rek ah, wallaahi mais mun nañ njëkkee fees umra ji dem a borom barrière or man jox bu borom barrière or bii ci kattanu borom bi tey duma fi fanaan foofu ah ayu Fatima Rokhaya ah, jigéen ah, naa fees yaa man Fès dem naa fa 92 laa fa dem. man de demaguma fa. bilaay hmm. ma ma fay dem boobu. mausolée bi sax defaruñ ko noonu. man noonu ci bàmmeel bi laa fekk. macha allah dal nga ci. macha allah dal nga ci. man man man man man doon naa fa dem lu bëree bëri sax. waaw bi ma nekk bi ma nekkee Maroc doon naa fa dem mais dëkk mu neex nag. boo demee Marrakech. Marrakech day mel ni ne yaa nga tukk. aywaay ku ma aywaay ku ma aywaay. Casablanca noonu. maa ngi man man maa ngi woon xëy na daal xëy si naay de. yi ngeen wax nii ma fa Maroc gii mosuma faa dem. Ah, mais nag boo jógee Marrakech jëm boo jógee Marrakech. sama dem de sama mbokk yi Mauritanie la yem. dëkk bu neex man dem naa waaw man Mauritanie sama sot dem Rosso Mauritanie Marrakech fee Ousda Layoun Maroc dëkk min non dëkk yooyu utum xaalis la mais Maroc tam. neex a dem noppaleeku. ñetti at laa lay sofaal borom ko fa nuyu. laa lay ñu ngi koy nuyu magu jàmbur. borom HLM ñetti at laa fa borom HLM. kenn du moom moo yaa moom HLM yaa loolu. laa ah. ah, loolu moom doo ko fi la menn bàyyi la. mooy borom HLM. loolu non loolu c'est dañ koy xool. la muy liggéey HLM kenn da ko. macha allah dañ koy xoolal. waa HLM xam nga ne dañ la. dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dafa am lu ñu la boo xoolee rek ree na. waaw daal jàmbaate gi ci moom. doon nag jigéen ju mën góor. Ah, incha allah nga xamoo ne fii. liggéey jàmbaari fàkk tëdd. maire yëpp wàllum koppar. moo leen mooy gérer. moo koy gérer. lépp moo koy gérer. macha allah nga am lu mel noonu koo xam ne maire bu dox moo la doxal. nekk sa nga xañ ko sa maire. nga xañ ko sa maire. waa HLM yëguñu woon loolu yëguñu loolu eh. dëggal ma dëggal ma sama doom ji nga xam ne ne moom. yow eh, xanaa kay danoo dese danoo dese yëg dese yëg loolu kay xanaa nag. jóoba jubba gi jeex na jóob ma. mu ne la doomu Ibba Seye ji ak Ablaye Seye ji. ah seen ah. doom ji naan ma ay père màkk bi moom est-ce que doo ko xoolaat. non yow màkk teel na si yow. kii di ma tutoyer nii. yow Alioune Seye yow wax na dëgg kat foofu. man moom pare naa moom man umra bëgg naa ko. ak gi moom. ak man su ma amoon bii nii moom sama sama sama yaay. balaa may dem nag maam kenn ah, dem ba pare. sama préféré balaa may dem ma moom moom sama mag balaa may aji màkk moom daa aji ba ñëw sama waajal. te kaala gi nag yàlla defal. allahumma amiin lépp man moom benn yéene laa am ci moom. Mm. yóbbu ko mu ziar. Ah, ndax gëm ndax yiw. ndax tedd suñu waa kër dañ koy wooyee Seyda famille mm. ba ma ko xamee maanaam man maa topp ci moom xam nga xale la. Mm. ba ma ko xamee ba tey musuma musuma ko gis musoo tubay. ci àddinaam kon jaarul ndaw. li nit ba gis boppam mm-hmm. bariwul rarement ngay gis karawam très musuma ko gis nag mu maanaam da nga ko yëndal mu ne la duma ko def. daa euh, gis mu faat waxtu des fois dama xam dama ko dama naan sama rakk bu jigéen bi waa kii moom est-ce que dina dog <laughs> ndax tout le temps woor julli dem ci diine boo ko woy boo ko woowul dem na. moom yàlla rek ko ñor ñoo xam ne billaay yàlla moo leen defal yaral boppam loolu moom nag yàlla ko defal voilà voilà bëgg a moo leen boppam yàlla mm-hmm. ko defal mm-hmm. kooku de ku mat a jàpp la du jëw mm-hmm. gis nga gis nga mantu mantu am na ci jëmb yoo xam ne yàlla moo di yar nitu sama yaay daan toog ba saaga naan kon kaay ñaanal kooku ñaanal macha allah yiw gi ci moom kooku ñaanal jar naa de tellement yiw tellement maandu tellement baax yan na dem fële nga xam ne ne moom. mooy daj dëpp loolu laa dina am de yéene bi dina yegg loolu sama ci moom. yéene bi dina yegg. ci baax borom. yéene bi dana yegg de. yéene bi dana yegg de. mooy Sayda de xoolal seen waa kër ñi ngi lay naan mooy Sayda Fatou Gueye. ndeysaan wallaahi maam kenn mooy Sayda. dafay am ci famille maam kenn ñu ngi lay nuyu cubb. famille dafay am ñoo xam ne nii. Mmh, mooy Sayda. ñooy mmh. bërëbi gàllankoor. dégg nga moom bu soof bi mi ngay bëgg a dox. naan la kii nee na ma dama lay yóbbu màgg rien que li ngay wax moom bu soo am sa mbaay. <laughs> ah léegi yow yow balaa nga yóbbu kooku màgg ñun ñun njabootu. waaw ñun ñun njabootu ma bu so nag. waaw ah. ah. mbay mbay nag bàyyi ko nag bu yóbbuwoo kii ba pare. yóbbu yéen ñaar moom. ah waaye bu yóbbu ah. moom moom njabootu. moom balaa moo ma bu soo am sa mbaay. tey waaw waaw mais ma bu soo gi maa fa créé. waaw boo créé ñoo ngi toog. waaw dégg nga waa cubbeen yëpp nag ñu ngi seede. ah léegi kon Ndaraw Ndiaye léegi man Ndaraw Chéri Ndeye Mariam. man comme man. dañ ma adopté woon waa Mabou Saaf Sambaay dañ ma adopté woon. léegi man génne naa ci. yow maa la dugal ci Mabou Saaf Sambaay. waa léegi benn géwél ba am jom mi ngi nii. kan ah ñoom Mabou Saaf Sambaay léegi man génne naa ci sama bopp. déedéet génn maa ngi géwél ba am jom ngeen. waaye ñàkk mu nekk nii luñ ma dama koy sédd man buñ ma joxoon billet bi man dama la koy jox mbay. ah ndeysaan. ndax nga jox ko suñu yaay jëlee na ko waxee. Ah, waaw kon ma jox ko ko de. walaay. walaay ndeysaan kaala gi sa bopp. ndax lu ma doon tey yow. walaay ndeysaan. billaay walaay. kaala gi ci digg li. Mm. kaala gi sa yow de xam nga ne yow. maam bay am na billet. mooy da ngay dem. waaw waaw. may nee nag bu baax madame sama jëkkër rakk bi moom loolu woon nii ndaraw jaañ naar yàlla na yàlla doole sa jàmm nee na ma li nga yéene maam kenn bu ko yàlla mottalee nga le léegi maa koy def ah, ah, ah yow mu ngi bëgg doon kat waaye ma day dem eh, ci day dem borom bi day dem kenn man nag loolu moom daa war doon non man farata laa ko def nii de ci baag borom yow tamit yàlla na sa jàmm ya day dem de déggal ma nee na moo waxal ca kaw chéri caat day mareem waaw ah, kon moom mu ngi ci. Ah, waaw bañ a yóbbu waaw waaw léegi d' accord nu mu tudd. Euh, Cheikh Mbengue la. loolu. d' accord nañu film bi. defaral eh, moom du fa fan. kon demal pikiiru ji. déedéet déedéet non man bu ma amoon moom non demal pikiiru ji comme sama yaay dem na daaw rek yóbbu naa ko daaw man bu ma amee man mbay dama la koy jox nga yóbbu suñu yaay. ndeysaan ah loolu rafet na di. ah yéen a ngi kawe ah loolu rafet na di. mbay ah, yéen a ngi kawe loolu yéen a ngi rafet na waaye. mbay yéen a ngi kawe la tarkalla tarkalla tarkalla. ndeysaan foo pikiiroo man naan. ñoo bokk doo weer wuñ takk jabar. waaw ndeysaan ba pare bokk. te dara ñaaw ñëwandoo ci kër gi tamit ñëwandoo ci kër gi. ay seex ngeen waaw man moom daa am lu ñu boole waaw maa la wax ay dara ñaawul te mottali ba léegi yal na yàlla defar lépp non bii maa xam dañ koy lijjanti sa waay non day ñëw nañuy toog wax ñu ni di jox bii maa nañ ko ah. ñu ni suñu dem Maroc bi tamit fees nañ ko lijjanti parce que ah. ñun suñu budget un million bi mu ngi fee bëgg a yàq te bu yàggee day expiré dafa c'est pour une durée bien déterminée expiré ba expiré day dellu bay nan teg lijjante bu sa yaay ak bu maam kenn. waaw maam kenn <laughs> ñaari biir hmm. ñaari biir. xam nga léegi la dañ naan sama bopp ma la gënal du bañ. yooyu ñoo xam ne ñoo ñu gënal suñu ah, bopp. waaw waaw dëgg ñooñu moom ñoo ñu gënal suñu bopp. yooyu moom ñaari moom daa war a taxaw moom bu sacrifice doon am sacrifice suñu bopp rek. ñaari biir. waaw ngeen ngeen dund ñun ñu dee. Ah. Ndaraw Diagne si iri naay ma kenn yow jaay naa ko am de Ndaraw kenn yow sama ren yéen na yàlla na barke waaye amiin waaye ah, amiin moom moo nekk borom bisik waaw yàlla ko yàlla mottali bisik ñu ngi baax a baax waaw waaw yàlla na yàlla mottali amiin amiin mënoon la maire fa Ndiaye dégg ajaratu lan nga ne maam kenn waaw cub ajaratu Mariétu Ndiaye ay waay loolu faw mu am ah, ajaratu loolu bu amoon maa la wax ma le maire maa ngi lay nuyu baax a baax sama sama sœur bi ñoom ñaar ñu ànd dem noo màkk suñu ñaari sœur yi ah waaw incha allah ànd dem noo màkk ci kattanu borom bi waaw war naa mën a ne moom na dama koy xola kuraab dama koy maye dégg ngeen gis baax dama koy maye. Kanda Gaspar dégg ngeen dama koy maye. waaw waaw waaw jox ko foofu. waaw dama koy maye dama koy maye xam naa li li ma bàyyi ko foofu ah. foofu de du delloo avance. borom bisik dama koy maye. jox ko foofu. nee ko maa ngi nii en fan yële mbay. noonu la sax sa frère moo gën waaw. mbay foofu ndànk rek. ay ndànk rek ay foofu. ñu ngi déglu de damay damay damay benn bët. damay jaale waa Cambérène ci benn xale bu góor boo xam ni macha allah. Hmm. gis ngeen ko nii. Hmm, xale eh, bu ndaw. xale la. yow lan moo ko faat. démb mu faatu ci anam anam bu doy waar. ñenn ñi nangi naan lacrymogène la. ñenn ñi nag naan démb tout la journée dara dal ko. Hmm? dafa jeg ba si àgg am lu mu jàmbat faatu. <laughs> mais daal ma doon maa ngi koy jaare seen waa kër yëpp oh. doore ko nag ci monsieur le maire Aliou Gomis ancien bu Cambérène waaye tam ci ki nga xam ne it mooy man cab ak Bachir Bachir bu lay sans sécurité di ko yaayam di xam bëgg tës mm. maire bi bëgg tës bëgg fan ngeen ak moom ndeysaan may wax xala moon na bay koy jaale waaye su di ko jaale sonaam sonaam xala oh. su dee judd na deux mille ca lay yam soxna Ndoro ci am ko mayee janvier la janvier bii ñu ko mayee janvier bii bii bii waaw yàlla ngoog. maa xujje maa ngi la koy jaale bu. wér wér wér ma maa xujje di ko jaale taan Adama Ndoye ñoom Aseen. ñoom Mbaye Ndiaye. ñoom Yacine ñëpp njabootu de jire yëpp maa ngi leen koy jaale. maa xujje maa ngi lay masaw bu baax. di bokk yow tiis bi nu metti vraiment man man waa ji man peut-être mënu ma ko mais def na dara sama xol daal deewu xale deewu xale bu ni ñu ko nettalee noonu la décédé daal hmm? metti na gaaw na dama xëy xëy fajar di liggéey naa am ko jàpp jàpp la hmm. ñun ñoo ko jàpp jàppe koo xam ma dem nga ma yaakaar ci yow Eh, àdduna bu doon jigéen tey ma xëy bàyyi baat waaw mm. àdduna bu doon mbalaan lu mu liw du ma sàngoo ci maa ko bañ na leen biir sunu joon bay na ko wax sunu paap joon bay na ko kenn mu tànday a ngi yaay waa Cambérène na bi dafa jeex de dama doon jàllale fi benn xale bu góor boo xam ne mm-hmm. dañu ne dafa ay moromam dafa lap ay moromam di ko génne yéen a ngi koy fàttaliku. waaw waaw waaw dafa daw daw daw. te xale bi génn daaw. daw xale bi nag finalement dañu ne ndeke dafa laboon. Hmm? ba barki démb xaw ma la du door a teer. ki ñu dafa daaw. Eh, eh, hmm. eh. ci metti mooy ba ñu annoncé fii tës bi dafa am ñu bari ñu doon wo yaayam. Hmm. nan ko. gis naa ko fii jox ko dóor di ko dóor. amuñu yërmande. yaay ji muy joxe. yaay xam doom ju am douze ans. réer nga tiit ñu naan laan mi ngi fii mi ngi fii da ngay joxe. la nga def ko muy joxe rek. nag dangay laajte léegi ñun léegi lan la dafa am lu ñu dugg wala. démb bañ na maa xale bi dafa mujj faatu te dafa yéex a sax teer ci géej gi. dama am lu ma metti adduna bi dafa jeex de nañu xoolaat bu baax jëf yi su ma leen wanee tësu tay bi rek nga xam ne tës bi dama leen koy wan ba pare door koy chapoter ngeen xam ne sunu xol yi daal ñun daal suñu xol yi daal Sénégal dañoo feebar waaw mooy noonu wax maa ngi yow bërki démb waaw waaw dañoo feebar laa la wax da ngay Hmm. non li fi am ci réew mi nit ñi di ko dund. wow iñaan géeg iñaan ñetti géeg mbon gi. kambal soxor di kambal doomu adama hmm. diw am na lii lu tax mu war a. tax mu am ko waaw. diw dawal na oto bii lu tax fu mu ko jëlee. surtout ak ñoo gaaw fu ko jëlee fu mu ko hmm. te yow yàlla suñu borom yooyu wërsëg. suturaal waaw waaw waaw ngay liggéey ñaan bi yàlla di dogal fekke woo. fekk na yàlla dogal ba no teg bët moo tax yàlla moo xam lu tax. moo bari réew mi lu tax wërsëg. mbay micro bi mu yor di wax. Mhm. force na jël place mhm. animation gi mbay di ko xool mu am. xaar ma rek non rek. wallaay dëgg la. animé mbay. moom xam naa daan maa mujjee moom xam naa ne animation bi. ma yàq animation man xam naa ni moom. loxo def nañ ma lëf moom ci animation loxo ji de <laughs> ma ci animation. ak li nga yëngal. macha allah en tout cas mi ngi daal soxor geeg ñaar gi bar na ci réew mi. bar na ci yàlla musal. amiin mais nag fi mu nekk danoo danoo perte suñu ay valeur fi mu nekk. Sénégal suñu valeur yépp lépp perte actuellement. dem du ma dem lu waay neex def soxor gi ñaan gi mel ni tuleeg man doo dem du dem. waaw <laughs> eh, baax na. yàq nit. ma màgget maa ngi lay baax a baax. sikk te xam loo ko nag de bu ñu laajoon fu mu dëkk doo ko wax. ñu la koy def mooy ñi ngay dimbali. ñi ngay dimbali gën la sa ba sa noonu sa ko jeex tàkk wala ñu la jege. ci ñoo xam ay anonymat. Mm. def la ñuy def. di wax la ñuy wax. waaye bu fekkee yow da laa igné da la soxore te la nga nekk nekk rek. ban ci ju baax. dara bu ma si jëlee yaa ngi lu baax bu la ci kenn soppi. yàlla yàlla du fekk wax bàyyi def soxor na nga mel. démb bërki démb di avancé. waaw bu ci dund dara. doon bëloo nee na. Mhm. kuy wër di wax. ak kuy liggéey man ñoo euh, weer wu lee mos. wala na di nga fayeeku. Hmm? ma ne ko kuy taxawaalu. yow de demal banque ndax di nga fayeeku. ndaw la fay romb courandeer nga fay jëlee. doo dugg sax gardien baa lay bulee fa. courandeer weer wu nga ni yéen a yem résultat. ne. lool ma ne li gën a métti mooy nga yéene nit ki jàmm moom ndekete lan ne ca biir xol ba koy joxoon mu ne la lu gën a doy waat mooy yow yaa ngi si Mame Mbaye Mame Mbaye Niang mi ngi yeewu cinq heures du matin liggéey chaque jour nga gis ko mu xëy cinq matin yor ko nga dox loolu kay dox loolu kay mooy dox fexe toog naan kii loolu la ñuy wax de. sàcc gi moom daa mel ni tur lekk. li jënti leen ko de fu muy dugg sax xamu leen. moo tax ñu jàpp ne yow. Mhm. boo amee dara da nga ko lijjanti. da nga ko lijjanti da nga yor benn vélo sax ñu ne kii fu mu jëlee vélo bi. daa dóor ba am daa daa dóor ba am ko te yow yàlla xam na ni. da nga koy wax ko amee dafa légal. dignement dignement nga ko amee. mais hmm. loo xam ci soxor ak iñam ñu bàyyi pexe yi kàmbal nit ñi. wax hmm. ci nit ñi lu ñu wóorul. tey nga bon par sosal nit ñi. iñaan nekk tey nga bon par force. di sos diw de di yàq nit kii moo nekk ci gannaawam ak ñu gaaw waaw non mantu la non ku yëglu leen ko yow moom réew mi booy daan bi yàmba daan booy dex bi waaw wala franc moom am fi kay moom liggéey am may réew mi dañoo tap tam tapale dañuy tapale ba xa ba tax liggéey sax jariñu amtul dañ naan xaar dañ koy lijjanti et pourtant ñi fi doon limal démb fii gaa yi ngay dégg fi yëpp ñu naan leen milliardaire nag ñu ci bëri fi ñu jaar buñ la ko nettali woon da nga naan déedéet dëgg am na nag ñoo xam ne moom xam nga xam nga xam nga par exemple na ko ci ci ci interview bi bi ñu ko dalalee fii bu démb mu ne da daan toog seen kër bun toggee añ ci leen ci reer gorob gobar jaasi da ko wax mu nañ kon saa di ko kook fi mu jaar metti na hmm. jaar foo xam ne les parties de ñee demal boppam ba tey taxawal li mu taxawal tey man la ku ñun ñii rek ñun ñii toog ñun ñii toog ku ci nekk dafa fàttaliku démb wallahi ku ci nekk ak la mu jaar-jaaram mu metti lool. ku nekk la nga mënoon nga mënoon daaw nga xëy léeg-léeg doo ndékki wala boo ndékkee añ bi day doon problème. dañ koy yëng lijjanti. ku ci nekk ñun am na jaar-jaar joo xam ne jaar na ci. billaahi mu metti lool. a ah, yow na nga jaar foofu tey xëy nga am sa jom. lu ne nga dégg ko nag kër kër gis nit ki rek mu commencé sañ sa nekk na télé bi di wax. nga gis nga gis nga am na ah, yoo xam ne boo ca nekkee di lijjanti. Mhm. lu ne da koy dégg. Mhm. moo tax bu ko calculer koy dégg de. dégg. yenn saay sama genre nga xam ne dañ daan jóge oxygène. Mhm. dugg ci toilette yi. Mhm. enfilé tenue. Hmm? daan liggéey oxygène ba quinze heures. président Lamine Gueye moo ma daan paye añ duma ko fàtte mu kër Maguette soo paree nga dugg ci toilette yi changé wu sol sa tenue is cours du soir. soo jangee vingt heures trente ngay pare parfois vingt une heures. nga dàkk siis bu mujj bi dootal sax wax ak ñi nga bokkal classe parce que xam nga ni siis bi bu la rëccee beneen bii ñëwaat xamoo kañ la wala doo amaat dama ne la te amoo paasu taxi mu wàccee la ban heure Cambérène presque minuit moyen ku la gis nga gàddu sa saak boobu mu ne xale bu ndaw bii wàcc ci bis heure bi fu mu jógee mhm. ñenn ñu ñaaw xalaat lu ne la ñuy xalaat ci mhm. yow billaahi lu ne nekk la ñuy wax léegi bu lépp sottee ñu ne peut-être dafa sob moo tax mu am lii. Mhm. fekk non non dafa ñafe. dafa ñafe. dafa daw benn anecdote laa lay nettali. Mhm. dafa amoon ay politiciens yu toog di waxtaan. Mhm. ba tudd sama tur. si ma lay déglu. léegi mu am ku ci ne xolal non. foofu noonu mu dëkk di ko jëndal. ñu ne dekk rek kooku ñooñu ne dekk rek non waaw déet ñuy wax quoi non këram kër ga sax. mu dëkk laa la wax étage ba waa ji ko jëndal moo ko jëndal oto ba parce que toogoon ca waxtaan ba moom moo ma njëkk a luwee ca biir kër ga <laughs> fekk moo la luwee moo ma njëkk a luwee ca kër ga ca ga nga toog naan waaw amoon teew teew moom la étage bi bo man moo ma leen nañ ma état ne dañ ma kaa jënd. ne ne dañ ko jënd yaa moom ko état. <laughs> politicien diw. xoolal nekk foofu ne leen déet sa waay ngi tooñ de. wallaay ndaxte kër googu man maa fa jiitu foofu man maa ko fa njëkk a laa jóge dem sama kër. Hmm. xoolal ma xeetu yàq der yi. parce que dañuy wax lu leen wóorul. nag dañoo mën loolu. incertitude la ñuy buñ la gisee ngay dem yàlla di la wërsëgal ngay dem. Mm-hmm. ñu ne non moom kat. Mm-hmm. politiciens yee ko yor. Mm-hmm. non moom kat tel politicien moo ko jox li na am sax politiciens yi nag am nag ñoo xam ne ay wax kat nañ moom. dañoo mën a yàq dara nag. luñ def wax ko luñ def wax ko. luñ la defal lu ne. bu ñu toogee ak seen gaa. non. moom sama la nekkoon de. moom laa naan daf may sonal quoi may sonal xoolal day. dafa mën a ñaan dafa mën a ñaan. te yow nga fàttali mën a ñaan yow am na deux ans ci gannaaw tànk nga doon doxee di daw ci gannaawam sax kay tànk nga doon doxee di daw ci gannaaw xam ne dañoo yey wili pande soo wàccee sa tànk yaa teg ci bureau yi mhm. hmm? loolu lañuy def wallaahi am na fi de am na fi ah, boo wàccee tànk yëpp yaa ngi ko ci bureau nga def le tour mais ni fi def nemmeeku tour waaw ndoog de wallaay sama jaaraat nga xam ne ñun man mi nga xam ne tolier sa def naa ndax ñoo ngi fi. mason nga sama dagg bi baaraam bi. maçon dagg fer la woon maçon. Euh. ñu ngi koy fàttaliku benn kii rab fer. teg nii di dagg. di dagg ñu waroon couler poto. man vacance moom du ma toog. day waa oxygène. vacance damay liggéey. oxygène. daawoon naa fa nekk. laa jël Alioune Diop technicien yaa ngi koy fàttaliku mhm. Mantoulaye. Mhm. mun na la ko seedeel ak ndem si yàlla Diaz. Diaz Diallo. fukki dërëm nga ma war a paase pour jóge oxygène dem ñibbi géej waaye daf may të. ma lay wax nii deux mille neuf la de. bilaay. ma toog foofu noonu di xaar xoolal mais comme damaa bëri kersa. pour ma ne sax mambay may ma cent franc ma paas ci dem te jamono jooju. tali bu mag li ko jëlee tali bu mag. dégg nga mm-hmm. ba marché zinc. jëmale ko fële ca euh, kii nga la tuddati hôpital Dominique agresseur kese la woon xoolal des fois da ngay jël tay la sa bakkan ne man damay dem ñibbi mhm. xoolal pour boo deewee nga ne liggéey jiyaat la parce que man kat mhm. dama góorgóorlu ngir sama njaboot mhm. jaar jaar doomu aadama dafa am solo day tax kanam ak sa ginnaaw da ngay fàttali nga jóge nga dara du fëkk sa dara du fëkk fa am solo nag moom loolu na leen leçon ñoo xam moom loolu noonu ñu jaaroo mbay ca mbay ñoom jàpp nañ la arrogance bi rek si indi si leen gi dem toog di xaar torox yow boppam yaa fay toog ba torox wallaahi papa Lamine Gueye anniversaire Euh, sa mag ji moo lay euh, souhaiter joyeux anniversaire moo tax nañuy delloo si xel yi. Mhm. tu ne adduna fi nekk te wuyu. dëgg la. jaar jaar jàll la. rafet kon boog am. ñii dañuy ñaar. noonu mhm. la dinañ dund dund dund ba am soixante dix ans wërsëg dab leen. am na ñoo xam quarante ans la seen wërsëg doog a ñëw. nii vingt ans. Mhm. Mhm. nii dañuy dund. wërsëgu doomu aadama normal sax quarante ans la. dans la bouche ni ñu ko ni ñu koy wax. ok parce que dañuy fekk si papa seen yaay. yàlla dimbali leen. Mhm. waaye lu ci mënti am ngëm-ngëm dafa am solo ci doomu aadama. tey mooy tondiku ñetti fanu bàmmel. ñit ñi nag dañ koy fare Hmm? dañuy foog ne ne ñoom sa a la dafa éternel da ngay dund rek di dem da nga njël hmm. oto fii da du jeex déedéet day jeex da ngay am règlement de compte ak suñu borom mais foofu boo gisee laa ko muy dem bu Cambérène dara jotu ko hmm? ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne dañuy yow da ngay xëy ne tey heure bii nii ba mu yeew démb ku ne ko woon ci morgue nga yeew dama ne ñu lay waajal. dégg nga mii. directeur urbain xëy ba jóg sangu toog di waajal pour xëy woo sa chauffeur ne yóbbul sama doom ji Mouhamed bu paree nga ñëw yóbbu waaw moom mu dem balaa muy ñëw fekk na nit ki suñu borom moom na ko. waaw loolu lu gën a kii loolu. et pourtant bu doon xaalis kese. du dem déedéet. doon teraanga àdduna rek du dem ndax te rakkam sax wax na ko ñun dañoo ndooloon waaye Omar moo ñu génn ci kon donc fii dara wuyut. déedéet mm. dajale alal dajale miraas la. miraas dong. nekk tey fële ca këru dëgg koo ci ne woon nii dañ lay may une seconde nga ñëw ci àdduna lam lay wax mooy ca lu baax laa koy def. Mm-hmm. Ah, fii ne fi jaay ci am-am sa morom am naka te xaflaat nga fu mujj moom ci sëg yee. non jàmbaar boo fekk nga fa milliardaire fekk nga fa millionnaire fekk nga fa borom xam-xam. te kenn xamewul kenn ñu nekk ñu bëri ñoo xam ne waay bu doon tey alal rek hmm. fi gën a ngi ci dugg fii di daw di daw di daw ba loolu. Saint oh, Lazare xam nga ndànd fooy fooy googu nga ko am marché léegi ana loolu da ko topp topp ko de du de dara duñu topp dara kalaatoo mii moom it te eh, ndox bi ma yor nekk milliardaire ñëpp xam ko am njëriñ lool covid ñëw yàlla ngo te yàlla ngo ay leen si Euh, sama sama sama na carte terre bi ak identité nationale euh, ñaari carte d'identité nag laa benn bi Omar Camara la benn bi Malamine Tekaañ euh, beneen bi lii nag dafa mel ni kii la carte bancaire ci turu monsieur Camara Omar Amar Kamara moo moom presque pièce yëpp bu dee mën na jege si Amar nga jël say pièce say permis say carte d'identité ñoo jël si ko mi fi Mantulaay Mor Gueye mi ngi lay nuyu oxygène. Mor ne nee na je suis témoin de toi. des talibuma. toutes les quatorze heures Mantulaay tous les dimanches à oxygène. Mor chéri tane. waaw chéri tane. dëgg dëgg Afia FM. Mor maa ngi lay nuyu sama Mor Mor ku lewet ku baax ku ñàkk ki ñaan ñàkk ki ñaan ku ñu teetee ci lu bari ndaw maestro ndeysaan dem si yàlla si yàlla ko yàlla baax ndeysaan amiin amiin bu baax ñu bari mu dimbali jàppalante yàlla tax jàppalante yàlla tax mm-hmm. ndeysaan formation rajo tonton Lamine Samba nga xam ne teg na ma ci scooter ba taay yóbbu ma ñibbi. teg na ma ci scooter ba taay yóbbu ma ñibbi. am nañu mbaax lool ci réew mi. Ah, ok information rajo communautaire dara du yàlla rek tax. dara du la sonal. ma Maguette maa ngi lay nuyu baax borom ginnaaw raay nuyu moom monsieur le maire lay jóg. bëgg nga ko baax. <laughs> Anta maa ngi lay nuyu. boo bëgg bëgg na la. dégg nga Anta bee tax mu insisté de. Pascal Pambo ci binda mhm. nee dafa réeral portefeuille bu maroon. am na carte bancaire carte nationale d'identité bu Gabon carte séjour bu Fass. ci benn taxi diggante aéroport ak virage. vendredi 77 209 58 12. Pascal fait très attention. Mhm. dóor kenn kenn woo dóor ko. du jox kenn xaalis na mu may dóor kat de. dafa may dóor mi ngi am quatre-vingt-deux ans dafa réer depuis mercredi nee na doomam Yuba Diaw moo koy seet Thiaroye Azur soixante-dix-sept soixante-douze quarante-six Mawa Diagne nee na dafa réer pochetam am ci biir permis Angleterre banque poste Italie banque suisse ak ay carte visite 76 420 45 94 wuri baylo ba 38 ans la am doomu Lamarana Sadio Ba ak Fatoumata Bintou Ba defaree depuis jeudi Pikine ginnaaw raay 70 799 70 69 Seydou Balde am 30 ans doomu Aminata Diawo defaree depuis mardi Parcelles Assainies unité 16 77 321 94 67 tas bi dama leen di woon ba pare door a wax. Hmm. Ah, am na si de kon joobe nañu woon. non. leen di wan ba pare. waaw beneen bi mooy maam. le temps que mantu di génne. dañoo yàgg di toog fii di défendre secteur privé national Sénégal. te ñun loolu la ñu gëm. le sénégalais d' abord. parce que doomi réew mi la. bu liggéeyee. ci réew mi lay def xaalis ba. des ci réew mi employé doomi réew mi xaalis bi ñu dundee ci réew mi waaye ñoom it ni ñuy di am yërmande seeni liggéeykat mhm. parce que dañ koy wax fii ci tubaab yi dañuy takk mbuumum jàmm sénégalais yi mais tamit ñi nekk ci secteur privé national bi buñ leen di kaasal ñoom it nañuy dimbali liggéeykat yi ne ci ñoom am na ci ñoo xam ne nag ay jàmbaar ne wax dëgg yàlla mais am na ci ñoo xam ne ne sa waay bu ñu waxee lu ñuy dund fii ci yenn yenn yenn patron yi teguñu ko fenn tam yërmande il faut muy am nañuy yërëm askan askan bi ku sañoon kenn du la emploi yaay employé wallaay dëgg la yemaleel vigile ba ak ka xam ne moom moo nekk directeur bu mag ca mm-hmm. mais boo bëggee jàpp na ne na ngay jiite da nga leen di takk mbuumum jàmm. Mm. tekkiwuñu dara. Mm-hmm. sa waay loolu du sotti. sotti autant nañ koy xeexee ak tubaab yi noonu nañ koy xeexee pour nit ñu ñuul ñu tamit. te ñoom yërmande ci ñoom la war a raw. Mm-hmm. parce que ñoo dëkk ak mm-hmm. xam lu ñuy dund. kon bu ñu leen kaasal ba nga xam ne tey ñu ngi am di mën di mën yenn yi ni ñuy am ñoom it yërmande vis-à-vis yu ñuy employé. parce que loolu tamit da am solo. am solo yërmande il faut muy am. askan wi dañoo sonn. sonn de ku sañoon doo nekk vigile. ku sañoon doo dem naan yaa ngi garder ay bunt ñu lay manqué respect fii di la kokkali fee di gën te pourtant ñooñu ne ñu gën a ñàkk a considéré. Mhm. te mooy sa kaaraange. ñoo jar a considéré lu ñuy dund sa waay buñ doon wax da naan déedéet. te moom mooy ñoom ñooñu ngay ngay suufee ñoom yor sa kaaraange. bu sa kaaraange alal. Hmm? doy na waat. dañ leen bàyyi xel wóor bi bu baax. waaye kii dañ kaa sànni jotaale. c'est ngeen jege ngeen xool. eh lii lan la. attends xool. lii lan la. suñu di xool kay ba pare ma expliqué leen waaye kii daa fàtt ñu sànni ko ci tali bi kii moom mantu yaam yàq journée yi def journée bi kon daa fàtt nit waaw daa fàtt kii bi yëngu tànk bi am na gaañu gaañu bopp bi ma ngay ma ngay ma ngay soon digg li xool wax nga dëgg yow lépp mel lu tam lépp daa daa kii kii daanu. daanu bee tës bi. kii kii ndigg bi daal dafa tëb ndigg bi kay moom boo expliqué naam tey ñu moo tax. maanaam boo xoolee yaram bi tourné ba xale bu góor bi. oh. kii nee na ma nee na ma lu xew billaay vidéo bi képp ko xool vidéo bi jarul xool képp ko xool di bëse baax xale bu góor bi waaw papam mooy wax ni tës ah il faut ñu déglu tës bu baax nee doomam un mois quatorze jours mi nii muy liggéey ci benn bus. bus lan Tata. non bus yi voyage yi. di bëri horaire yi horaire nag moom bus bi muy gën di nekk mooy buy jóge boo maraîcher di dem Touba. horaire yi lan mhm. na. voyage jóge Touba. di ñibbisi ñibbisi ñëw boo maraîcher. waaw. dugaat ci bus di dem Touba. jeey. y' a client. waaw peut être. naturellement comme ni ma daan def rek peut être rek. li tax ma ci ñëw loolu tës bi. Eh. xale bu góor bi benn taximaan moo doon daw ba yàgg mu gis mu tëdd tëraay bii nii benn xaj na ci wetam eh. mm, mm, mm. mel ni ku ko tiim loolu tamit. taximaan bi wàcc dàq xaj bi woo sapeur ci lañ woowee pàppam xamal ko ni sa doom dafa faatu. Hmm. dafa daanu ci bus. daanu si bus lañ wax. ci bus te fekk ñu fa kenn. fekk ñu fa kenn. waaw bis ba ah, moom bis ba mu doon jël ñu laaj leen yéen du sax daanu seen bus ngeen bàyyi ko fa ñoom ñu ne mosuñu ko yemaat. ñoom ban jugee Dakar dañoo dem directement Kaolack moom beneen bus la jël ñun leen bus boobu wan leen ko xanaa xamante ngeen France. kenn te ku ñëw ci dëj bi nee ñu bay ñibbi ba tudd turu xale bi ci bus la daanoo ñu dem bàyyi ko fa ñu menacé la. Hmm. waa bus xale bi jékki-jékki rek dee ci anam gii. xam nga lii du mort naturel ñu jégal ma rek nag ah, ah, kii boo leen xam ne deewam gii du dee xam ne ni da nga tëdd di nelaw amee crise cardiaque mais kii ndiggam di gis njëg ay yaramam wii dañu wax leneen waay loolu foofu lii dafa passé léegi ana ñi waxoon ne beneen bis la jëloon mais problème bi mooy. ban ak menacé ku fa wax ne daan daan ci bis ñu menacé la. waaye kii xam na beneen bis la jël war naa mën a xam ban bis la jël. waaw ka wax ne ne ñun kaw mhm. la ñu jëm. def kaw la. et seen bus ñëpp a xamante chauffeur bus ñëpp ñooy xamant mais est-ce que horaire mën nga jékki-jékki ci ci benn heure bi. changement destination. apprenti yi nag ñoom des fois dañuy bari ñuy lank. des fois mën nga langal kii bus bi langal kii langal kii. mais moom nee na benn bus lay liggéey. moom lay liggéey ci benn bus lay liggéey fan yee dem na fi Fouta ñëwaat. ah mais bus bu dem Fouta tamit te waroon daw Dakar Touba mën na dem Dakar kaw de. mais xam nga parfois bus yi mën na am voyage. waaw bu leen mën na mën na jël bu leen luy def mën na demee noonu ca Kaolack ba noonu la demee. problème bi sax mooy moom jël mais problème mooy du ñoom ñan la. ci waaw li ñu fan la boo marché la. dañuy xam non non mi ngi daanoo ne leen ci péage bii. ci ngàbbu bi bus boobu fan la. bus bi mi ngi jógee Pikine doon dem. na kilifa boo maraîcher wax la boo maraîcher bu fekkee bus ba yéeg ba daanu xanaa waa bus ba waroon nañ xam ne kii daanu na. ñu taxaw gaare parce que nit la nag du mala. dañ ko fa bàyyi. ñu bàyyi ko fa dem xanaa bus bi dawul vitesse xamul ni daanu na. mais bu ñu yeggee nañ xam ne daal na xam ne daal na yeggee gis nañ apprenti peut-être des fois nga romb apprenti boo xam ne sax dañuy sonn te di kaw di nelaw faa bi daal waaw waaw nelaw ci kaw dañuy nelaw ci kaw dañuy nelaw ci kaw pour parce que dañuy nelaw ci kaw dañuy tëdd kaw boo yeggee mais boo yeggee di nga xam ne nag apprenti mais boo yeggee di nga xam ni apprenti bi kat ki ma ki ma yàppaloon fii ba mu fees mooy borom ak ma ah mais nekku fi daw la jënti ko daw responsabilité léegi daal ñu tiit ñoom dafa dangay yomb mais même bu daanoo ni mu daanoo parce que dafa daanu ci tali bi ba mel ni ku tëb génn mhm. xanaa ñi ci bis bi dina am kenn koo xam ne fekkee ci gannaaw la xawee ko mais bis bi ci ginnaaw day am ñuy toog loolu ah nit ñi wane kanam <laughs> ni wane et puis allure bis bi yëg ni waa mais koo koo yebandoo mais nag boo yeggee fa nga jëm boo gisul waa ji war na ko woo war na ko woo xool est-ce que jàppul ñu ne tamit ci diggante ba wàcc na. mais benn apprenti bizarrement foofu ni waa ji tëddee nii. ñoom ñett ku ci manqué. nga xam dinañ ko xam. ni waa ji tëddee tànk yi ni mu dalee nii. waa ji dalu ci kekk ne ko dafa bën ba loxo yi ni ko talalee nii rek da ngay dañ ko diri teg. parce que bu ñu waxante dëgg gis nga dalul fii. kii tamit. bi du am kii ko bus dee ko metti xale bu ndaw dee ko ci xale bu ndaw chauffeur yi jàng nañ ci xel bu doon nelaw ba ba ba daan tamit di yéeme na bus yi nag assuré yi taw sa waay mais boo maraîcher boo maraîcher ñoom bus bu bus bu fa génn dañ koy xam non dañ koy xam loolu tax ma la waa boobu maraîcher koy xam ñoo war a jël seen responsabilité ñu wax seen filiation gi lépp xaw borom bus ba ka génn ànd moom ñu woo mais wax mu wax yëf a naan la demee ñoo xam rek war nañu mën a def enquête yéen ma waa Thiaroye ngeen téye seen paay paa bu ñu wax dafa réer ci dës bi la dëkk paa bi wëñ duree jàmm bàyyi ci suñu tës bi Sénégalais waaye dañuy yi ñoom dañuy naax dañuy naax. doo ci yem de doo ci yem de kooku du ci yem. ñu déglu papa ji. ñu déglu ko. Hmm? dimanche suba la korite bi dama tëdd ay côté trois heures du matin laa ñëw trois heures demi laa ñëw ma tëdd ba ay sept heures huit heures hmm. ba ay trois ay huit heures ay huit heures ñu woo ma ne jot sama soxna ne ko yaay yow yaay Moussa Faye mu ne ko waaw mu ne ko dafa wàcc ay pièces ci péage bi léegi man bi ma woowee bi ma euh, bi ma jotee mu ne ko ana papa mu ne ko bii sama papa léegi bi ma jotee ñu ne ma yaay papa ma ne ko waaw ñu ne ma dafa dafa def soog may la soog ñu ne ma waaw may la fu def soog bu ñu ne ma ci gisee tubaab bi boo wàccee péage bi dafa def soog ci deux voies ngaabu yi dafa daanu ci benn piste mu ne ko ma ne ko anamu mu ne ma yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko daanatu ma ne ko mbaa bay si météo mu ne ma ah kay léegi daal boo tuddal yàlla léegi nag man ci laa tudd yàlla ne war a wax dëgg yàlla am na barkaam tudd yàlla man tudd yàlla ma tuddee yàlla nag léegi sama waa kër daal daanu sama kaw man ma ci laa génne kër gi dugg sama sa dugg sama sama yére ci laa génn ki nga xamante ne bi ñoo ma doon àndal ñu ma leen woowee après ñoom ñu dañoo daw ma àndu ñoom ñoom ndax man Pikine la wàcc euh, gisuma ko wàccee Pikine nag ma ne ko ma ne booy ana ana njàmme mu ne ma njàmme njàmme njàmme ba yàgg mu ne ma njàmme booy yi ne daa wàcc Pikine ma ko mu njàmme mu wàcc Pikine njàmme mu mu leen mu leen daane Touba mu wàcc Pikine wax leen ma xew mu ma njàmme daal booy yi ne Touba Mbàkke euh, euh, la wàcc ok man damaa dem Kaolack ma ne ko da nga dem Kaolack mu ma ne ko ok ah ci laa coupé sama téléphone man euh, dem ci bi ma waaj ne ma demal garage Dakar soo demee ci gendarmerie bi danañ la wax fi ngay déggoo leen corps bi sappoor bi indi moom lay jël si danañ la wax ni ngay def ci laa dem nag foofu ñu bind benn papier dama demal jànnatu mu dem jànnatu ne man naa dellu gendarmerie ma ñëwaat gendarmerie bi bind na benn papier ne man naa dem euh, commissariat boobu euh, kii tribunal boobu kii ma dem ñu signé ma bi ma ñëwaat gendarmerie mm-hmm. waaw sa doom bi emprunté bis la nekk loon ci bis gaa bi mu amee permis la bis bi mu ngi def mois quatorze jours quinzième jour bi ci la wàcc ci la décédé. kon moom nekkul woon di liggéey ci ci ci ci bus yi. benn ay mille car la doon def a car yi di dem di ñëw mais même bis bi ñu duggee ak léegi. car yi nekk Touba yi daal Touba Mbacke Mbal. moom dem na oto dañu da doon génn. oto ñu nekk da doon génn comme yàlla def moom soog a permis. non li may laaj mooy maanaam moom avant mu doon da doon lang ci oto yi mbala langu. da doon lang da da doon lang ci oto yi. da la di lang. Mhm. ba am permis. ba bi ñoo bokk koñ mu woo ko. man boo maa ngi Dakar. ki mhm. mu ko woowee man dama jëkk ñu ne mi ci bis ma jàpp ne man ñi yërmande ji ñi nekk ci lool la am ci sama dëkkandoo yi ma nekk nekkal mm-hmm. ma bàyyi ko fa mm-hmm. aw ma lu dul dafa deesede mi ngi ci dong laa ci am d'accord léegi yow d'après yo bi nga defee enquête maanaam moom euh, dafa dafa dafa daanu ci bis bi waaw dafa daan dafa dama leen dama dama laaj ñu ne nangu ci suñ seen bis dañoo yet dem Kaolack mu la nga bis Dakar di ñëw Touba ci bis yooyu la daanu may leen ban bis la mënuñu wax ba am gis na. d' accord léegi euh, man vidéo yi ma yi ma envoyé. Mhm. maanaam xale bi ay nit ñoo doon daw ba ba fekk ko foofu mais nekkul ci bis bi mu daanoo bis boobu dafa taxaw taxawul. bis bi taxawul. d' accord parce que vidéo yi ma envoyé nit moo dox ba yem ci. benn taximan dégg naa mu jógee joonu Jurbel dox ba yem ci. Mhm. seen benn xaj bu ko bu bu bu ci côté am cinq mètres. Mhm. cinq mètres diggante moom nee na waa ji bi ma ko xaj bi ñu mu def ma xaj bi ma freiné mu daw. waa ji gaare ba mu jekk xaj bi tëddal mu dem mu xool kanamam seen mu tëdd mu tëdd foofu mhm. bu mu tëddee nee na ci la woo sàppoor la mhm. woo sàppoor bi sàppoor ñëwee ne ko xaar noo bul dem bañ ñëw bu sàppoor ñëwee ñu jël ko ñu yóbbu ko dégg nga mhm. biñ ko yóbboo ci lañ ko saa waa ji ko saate waa ji moo kër sax waa ji ñoo ñoo ma woo ñoom d'accord est-ce que léegi su euh, mu nekk nii xam ngeen ban bis la daanoo bis bi mu àndaloon di liggéey ñoom ñaa woo ñoom ñu daw seen responsabilité moom set ñoom dañoo ànd bi ñu dem Dakar mais Dakar lañ ko bàyyi dana wàcc. d' accord maanaam ñoom Touba lañ jógee di ñëw Dakar. waaw ñoom Dakar la ñuy daw li nga wax maanaam mooy ñëw nañ ba Dakar xale waaw ñoom ñu yëpp jëm Kaolack. ñoom ñu ñoom ñu jógee Dakar demaat Kaolack. waaw waaye nee na nag moom bi ñu demee Kaolack ñoom moom dafa lang ci bis ñoom Touba. man la loolu yéenul maanaam bis bi yéen rek lay àndal ñaari bis ngeen yor ñi ngeen koy booleel ñoom ñi ngi fi kon moom ànd moom dong wàcc wàcc Pikine Pikine man dong la fa. dafa am dafa am man ni papaam kese la xam Pikine te mosu ñu sori xam mosu ma suñu féete. ok yow yaa jaaree Pikine. man maa nekk Pikine papaam waaw. Mhm. Mhm. d' te léegi ñoom li la wax maanaam mooy ka ne ñoom jóge nañ bi mhm. ñuy di dem Kaolack. ci la ci euh, egg na Kaolack wala eggul Kaolack. nee la ne Pikine ko war na wàcc. ba ñoom ñu yeggee Pikine dem Kaolack te booy di gisaatu gisaatuñ ko ma ne loolu mënuñu nekk mënuñu nekk. Euh, nit ki damaa jàpp ne yow nit ki da ngaa nekk da ngaa nekk moom. ah nga nekk ak moom. Mm-hmm. nga ànd ak moom dem Dakar mu daanu ci àll bi ñu wóor la diw de dafa daanu dafa ñàkk bakkanam nga ñëw ci enterrement dem ñëw ñëw ñëw ci kër gi dem ñibbi seen kër ah, ci ñaan gi sa benn am na ko lu ca lusal ba pare ñuy kare ci mbedd ni ñuy jóge ci satas yi wax ne suñu doom dafa daanu ci bis yi ah, ñu di kar di leen di ci mbedd yi ba tey ci mujj ñu jóge satas si di ñibbi

waaw ñoom wax nañ ne booy bi dafa daanu. <laughs> wax ko seen i mbokk nee na waaye bu mu xam nañ ay seen patron ak ñoom ñëpp xam nañ ne bis bu daw xam nañ ko li nga xamante ne moo. loxo loxo mi ngi ci biir ci Sénégal. Hmm. xëy nañ lépp lu ci nekk war nañ ko mën a xam. booy mënul dee su wala korite ba léegi ñun affaire bi amaguma ci benn benn benn benn benn virgule bu ma mën ne ci laay sukkandiku. d' accord kon ci ajuma bi a daanu ci bus. ajuma bi lañ ma woo. kañ ko gis ci autoroute à péage. xanaa ma xool ay côté lan. sept heures huit heures. ban jour samedi. jour julli bi. ñu ne suba vendredi. vendredi lañ ma woo. vendredi lañ ma woo. non vendredi lañ ma wooree. yow vendredi lañ la woo. waaw yow boo xoolee photo ah, image yi. gis naa image yi dama ne léegi yow kañ laa gis xale bi d' kon. kañ laa ko kañ nga ko gëj a gis. xale bi bi ma jëndee téléphone mooy bi jàpp ci koor gi ay quatre xaw ma cinq la ma woote ma dañuy dem Fuuta dama bëgg jëndaale sama yaay suukar ma envoyé ko six mille mu jënd. di ko ñeenti fan. waaye la cinq waaw côté yooyu la mu yónni mu ne ma naa ko yónnee six mille message baa ngi sama téléphone. Mm-hmm. man ma yónnee ko six mille mu ne ma dem jënd euh, yi mu jënd ci ñaar. Mm-hmm. indi ko suukar bi léegi laalaguñ ko kon loolu yàggul. yow bi maa moom booba la gëj a wax téléphone bi mu ko ma ne yaay ji ma xam dañoo tëj wala tëjaguñu ma woote ci kër gi yor rakkat bi indi ci indi daal demaat yaakaar naa trois jours des man maa ko jiitu ñu woo a ne ma gaañu nit ku gaañu nga dëkk ci moom ko ñu ànd ak yow ab saagam démb la ñu saag bis bi ñu nekkoon la ñu yónnee saag bi démb ñu ne ma daal yaa ci kaw mooy ñooñu ñooñu di menacé waate seen bis bi ci ñoom ñoo leen bi. ñoo ma jox bi démb. d' accord léegi nag bi affaire bi foofu yow euh, maanaam enquêteurs yi lan lañ fa lañ fa lañ ma fa lañ ma woon sànq ay côté dix sept heures fa la ma fekk mm-hmm. biñ ma dégg biñ ma woowee laaj ma ma expliqué leen am na ñu ci témoin yu ma àndal damay dem mm-hmm. ndax ñoom nee nañ seen garage bu ñu doon jàngee métier benn waay moo fa ñëw ne leen njàmmee dafa daanu ci biisu saal dafa daaw ci biisu saal mhm. ko yaa ko fekkee ne moom moo ko fekkee mhm. ñooñu dem di leen woo mhm. bi ma àndee ak ñoom dem gars yi dañoo doon menacé ma ne leen yéeg leen maa leen yóbbu ci oto ma ne leen yéeg leen ñu dem ñu yéeg ba génn ma doog a yéeg ñu bàyyi leen fa police bi di leen police bi di leen ànd ànd police bi ne ma dama suba sànq bi ne ma suba yow doo ñëw waaye ñoom suba dañuy daan ndax apprenti yi version yi ñu wax bokkul ñi dañoo wax gauche ni wax seen mbir yi wóoru léeru dama woo naa ko léegi ñoom suba dañ leen di woo mais yow da nga déglu suba dinaa la raas ñoom bu ñu ñëwee. waaw man nag sama bopp dafa tëju sama yaakaar laa ci defal sama doo sama sag sama taaw. d' la am mu yàqu. d' accord pare ñu ay xale yu ndaw di menacé di ma jaay ni yaa toll te man du ma man yaru ñu day nit ay dong daara leen. d' accord ñoo jàng tar euh, bi ñu. d' xale ba pare. denc nañ ko. d'accord ñoom kenn ci ñoom ñëwul ci sarax bi. ñëw kenn tegu sa tànk ba pare di menacer ñu jëli sarax bi ñibbi. Hmm. loolu fi ñu ko teg yow rek mu ñëw ci mu bi looy woowee dafa réeral carte grise licence assurance permis ci turu Modou Dione livré HLM Sodida. 36 587 63 20 ngeen ni. en tout cas daal léegi kii wax nii. c'est vrai péage bi maanaam bu ci am péage bi dafa am caméra. am na caméra porte plainte am na caméra. ñoom xam nañ li xew. léegi nag na porte plainte moom. bu porte plainte saa police dugg ci mu jeex donc. kii nee na mu chauffeur la am na apprenti yoo xam ne dañuy nelaw. ci marche marche à pied bi. marche à pied bi ci voyage. waaw ñu nelaw ci marche à pied bi. dañ ko téye nii bokk dañ à pied bi téye di nelaw. di nelaw porte bu fekk ba waral nag. géej day am tout tout moom ak tout moment géej day ko papa ji ne ko saag bi mbalaan bi mbalaan mooy li ñuy sangu. dafa ah, dañuy ci kaw ci kaw di sangu. waaw mais quel que alpha. lu daanoo ah ñoom courtoisie gu doy war a taxaw. waaw loolu moom dafa xam ne nit la du mala daanul te parce que ñoo ko bëmëx accident la dafa daanu bu fekkee noonu la mais daanu nga bàyyi ko péddu loo ko camouflé xam nga li ci mënti am yoo xam ne kenn mënu ko ci nangu ànd ngeen daanu na daw responsabilité war ci am parce que te lii sax mën na mën na mën na daanu te ko gis. waaw mën ko bañ a yëg mais bu ko. dafay nekk ci naka. doomam faatu ngeen koy bang bangee. loolu tamit kenn du ko def. parce que loolu tegul ci yoon du dëgg du yoon la war moom mooy ñu woo ko ko góor gi. Mm-hmm. mun na leen naam. ñu ne ko mbir yi nii la demee. Ah mais magum jëmm nekk ci naqar. jël doomam suul ba pare di leen topp pour am ci lu ko leer ngeen bëgg bang bange. Hmm. nanu ñëw nanu nanu ñëw joxe seen responsabilité ba mu mat sëkk. ci bu duggoon xam na ni. dafa daanu. am na ci koo xam ne ku wax ki ne moom. ci bis boobu la duggoon kooku xam na. ci am na koo xam ne fekk na ko kooku nag la ñuy entendre kooku nañ ko entendre. léegi nag procureur. Ah. moo war a autosaisir. autosaisir waaw waaw. woo papaay gone gi déglu ko yebal waa wa waa gendarmerie ñoom ñoo yor mbirum autoroute à péage mhm. ñu woo ña nekk boo maraîcher pikir nañ jóge xaw ma fu ñu mën di jóge ñu woo leen déglu leen entendre témoin bii ki wax loolu ñu entendre ko mu wax ñan ñan la àndaloon ñooñu ñëw wax seen et puis am na am na am na am na caméra surveillance caméra yooyu ñu teg ne la daal bu fekkee ko diri wala dañ ko kii wala dañ ko fa sànni dañ ko xam il est facilement lijjanti. donc c'est facile. nan la nga ko porté plainte rek. ndaxtal ngeen koy bang bang kii di. ko jaabante la waaw waaw menace fële. ba pare dañ ne kenn du ko fi waxee. waaw bu daanelee boppam sax ngeen war a d'accord ne lii moo daaneel boppam yéen seen yoon nekk si insécurité rek. donc ñoom it à nañ ci bàyyi xel ñoom ñi nga xam ne dañuy dem di voyage yi peut-être jaabante day bari na su dee événement ba amee dañuy jaabante dem ñëw dem ñëw day bari euh, donc sécurité bi ñoom si boppam ñoo ñoo ci war a gën a taxaw seen bopp taxaw nekk si kaw oto dina la xam nga euh, jekku mais apprenti aussi bàyyi loolu ma apprenti laa wax si je veux dire man apprenti laa bëggoon wax nañ ko bàyyi loo xam ne wóorul daal te lii mën la ci fekk nañ ko bàyyi oto buy daw mënoo nekk ci kaw di nelaw xel dama boo mënul ci biir nelaw bàyyi ba nga egg fa nga jëm. yàlla surtout dañuy nekk ay ñaarax ñett. waaw nga nelaw ba doyal waaw. bàyyi keneen ki wala bu dee apprenti yi bari ñeneen ñenn ñi nelaw ñenn ñi dem. <laughs> bu ñu ñëwee ñenn ñi toogaat nelaw ñeneen ñi demaat. <laughs> ba ken daal fi mu ne réew mii. <laughs> da ngay saxat sax du egg. wallaay maa day taali. wallaay waxuma la nga xam ne lii dee mën na la ci fekk nga koy def. xel bu baax daal. mu ne taw responsabilité moom moo ci warul am. loolu ci am de. ànd ngeen ak nit. ndogal am na ñoom ñoom tey nii am na ci xam ne mënoon nañ leen di topp. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. parce que bu ñu yëgee ne ji daanu na dimbali wuñ ko dem foofu ba ko fa. Mm-hmm. loolu yoon danañ ci. di topp waaw buñ ko yëgee. buñ ko yëgee. waaw buñ ko yëgee. mais papa sax foofu il mérite des réponses. vraiment dañ ko war wax sama xam nga lool day dalal xel. bis mu dugg mi ngi nii teg loxo ci bis bi nii ngi nii fii la duggoon fii la daanoo mu xam mu jeex. wax dëgg yàlla ah? waaw waaw. waaw a mën nañ ko ba yegg si saa si lan mais boo demee ba yegg di nga constaté ne diwkat daa manqué. et puis rumeur faat bi. da da day kii si ñoom. dafa daanu ci bis. waaw ñoom ñàkk ñu ko bañ a. boo ñëwee jaar si neex neexul ba neex waaye kii. mais est gis nañ ko. non certainement ñoom ñoo àndoon. ñoo àndoon ci yoon bi mu daanu la amee. waaw. waaw mais d'accord mais bu nekkee ci c'est vrai bu nekkee ni bu nekkee ni. waaw publier nañ photo yi. ba client ci bus yi xam ne ñun. bus bu ñu leen waaw waaw mën nañ dénoncer waaw. mais est-ce que tamit. non yàggul loolu vendredi la. bindee suba la koor la korite la. il suffit mu am benn client bu accepté wax bu ñu demee ca boo maraîcher dina dinañ xam ko fa la yéege. mais papa boo ko déggee ne papa ji am na ko wax ni gis na ko ci bis boobu. bon nag lan war a wax bis ba la ne bis bu ko mu daanoo boobu. bis boobu la daanoo bis bu fay départ dinañ xam heure ba nga déparé. Mhm. ak kan ah ñoom moo tawal xam na ñoo nekkoon apprenti. mais lan moo waral lan moo waral léegi ku wax la ñu lay menacé. loolu moo doon ko ñoom. mais même ñu nekk boo marché bisu buy génn est ce que moom ñu ko fa xàmmee xam ne bisu Mamadou mo la fa diw bi ci la yéegoon njàmb. am na ko wax na ko ko ci bis boobu. ah waaw te wax bis bi neen ci ñoom. ah papa ji loolu wax teguñu ko fenn teguñu ko fenn. teguñu ko fenn. en tout cas euh, comme péage bi am na caméra moom. soit ngeen dem wax ne ñun la. ñu lijjanti ko mu jeex. daa métti yaa ngi amee naqar sa doom faat. am ko ci lu ñëw ku nekk di daw responsabilité. naan la fii la nii di menacé. waaw bu yéegee ci bus daanu. loolu la yàlla dogal. mais la war mooy. boo ngeen yëgee ne dafa daanu da ngeen war a taxaw. Mhm. boo leen yëgul loolu boo leen demee ba yegg à destination ngeen constaté ne nit ki kat ñëwul. Mhm. war ngeen a dem seeti jóg. Mhm. loolu mooy yoon. mooy yoon dem ci ay kilifaam sax. dem ci ay kilifaam ci ñun la nekkoon waaye bi muy daan ko. Hmm. loolu yéen loolu loolu loolu je pense que mun na bañ am gaañ. bu fekkee li li li doy waar kay mu yëg si bus def soog. ñu koy jéem a nëbb ba après. nga koy jéem a nëbb. Ah. loolu yaa ngi dugal sa bopp. yaa ngi dugal sa bopp. bu leen dugal moom dafa war a am lu ko leer moom. dëgg yàlla. dama ne. Ngaabu sax ak Touba googu ñuy bu ñu demee ba gis na yegg nañ Touba wala Mbacke ba gisuñu ko. bu ñu wootee boo marché gisuñu ko ñu woo ko téléphone am jotuñu ko mënoon nañ delluwaat côté Ngabou boobu nga seet ju ko. na dem ci procureur na dem ci procureur ñu ërtal leen ñu wax doomu jàmbur ji nu mu faatoo. Mhm. danañ wax ko ko yow amul nañ ko wax kay. nga dem porte directement procureur entendant na xaar comme takk der ñu ngi ci enquête bi. Mhm. Mhm. na xaar enquête boobu lu koy jural bu dikkee nii dalal na xelam ah parce que réponse bi papa ji moom xam naa ni njortul wala neewul fenn dañoo faat sama doom parce que li ko gis xam ne. daanu la daanu la. ku ne daanu accident. léegi nag problème bi mooy ban bus la duggoon kese mooy. Hmm, voilà waaw loolu daal mooy laaj. xam nga dafa metti sa doom daanoo a ñu dem bàyyi ko fa ba ay xaj di ko tiim. Hmm. xam naa yooyu moom metti xolam réponse rek la bëgg. kese xam naa du leneen. te am na ci droit doomam la. waaw ku fi ne. ñëwul. ñëwaguñ. ñu dem machine. woo waay ayca.

bu leen ma déglu ma wax leen ana naka la ñuy inscrire ci liste électorale yi nu ñuy voté atum 2024 naka la ñuy amee carte nationale d'identité yi dem police wala gendarmerie ak sa extrait de naissance yu amagul ñetti weer nga dem ci chef de quartier bi ngir am certificat de domicile soo noppee nga dem mairie pour am certificat de résidence doog a dem nag ca commission bu la gën a jege ngir bindu ji naka la ñuy amee duplicata carte nationale d'identité da ngay dem police wala gendarmerie ngir ñu mën laa jox certificat de perte ak photocopie légalisée bu sa carte d'identité nga doog dem ci ab commission ngir bindu ci liste électorale yi ana naka la ñuy bindu ci liste électorale yi da ngay dem ci commission révision bu la ak sa carte d'identité sa certificat de résidence bi ngay récupérer ci mairie ba wala chef de quartier

ana fan ngay dem pour mën a bindu ji mën nga bindu ji ci préfecture yi ci sous préfecture yi ci mairie yi ak ci commune Sénégal bu mu mën si doon ñu leen di fàttali ne mbindu mi tàmbali na ci juróom benn fan ci weeruk avril la fas yéene jeex ci juróom benn fan ci weeruk mai yéen ndaw ñi ngir mën a bokk ci tànne fukk seen jiitu réew gaaw leen gaaw dem bindu ji ci liste électorale yi ci commission yi ngir mën a tànn sama carte sama baat benn waat yaakaar naa ne a yàlla na yàlla sow bu baax na yàlla may na xol muñ wallaay yàq sa dox rek daa metti maa ngi laam laame jaanam yàlla bu mu nekk nag doom joo xam ne da nga a yaakaaroon amoon njëriñ mu am la mu daw indi leen ngeen défense ndeysaan parce que bëggul nee na bi muy mujjee wax ak moom mi ngi naan comme dama bëgg jënd sama yaay suukar ko jënd indil ko xoolal ma loolu. mais <laughs> juróomi fan la ñu ne ko da ñu ko gaañu. xoolal <laughs> ko. amaana na ma nga doon daw mm-hmm. ko rek. jënd ginaar ak soble saak ah. pomme de terre ak yooyu. yal ko yàlla bu baax góor gi. métti la dégg nañu xam ne xol bu lay waxee. waaw. Mm-hmm. ah ñàkk rek dafa ñàkk rek dafa doy waar. Mm-hmm. sàkk maa sàkk nag si anam nga mu demee. dëgg yàlla doom mu màgg sa ngay xont ak def yëfu sàmm di artu ndeysaan mu dem ba am fu mu toll sa doole néew amutoo kàttan ndax mag nga mu wutul yaakaar gi yëpp day nekk ci mm-hmm. yëpp day nekk ci moom góor kat loolu lay jariñ waajuram wallaay dëgg di daw di mm-hmm. indi mm-hmm. mën na mënut waaye la muy am di ko dajale ci ñàkk fanaan guddi ñàkk a nelaw ak li jëm ci wàllum apprenti na mu ak risque métier bi mm-hmm. Mm-hmm. xale mm-hmm. yaay yaay buy ba jëndal suukar indil ko nga xëy ñu ne la yàlla wedd kooku yaakaar bu tas lay ko yàlla may xolu doom de moom daa sax ci xol mhm. dafa neex dafa am solo ci dundu doomu aadama mhm. Mhm. rawatina bu demee ba am nu mu toll nga yaakaar sa doole njaboot ñëpp seen yaakaar nekk ci moom alaay ndeysaan hmm? xolu muñ wallaay di ñaax di ñaax ñi di nekk ci genre situation yi accident ba amee assumel assumel ses responsabilités. da gis ku mbëkk nit ci tali daw. daw. benn budul ñaar. benn bàyyi ka fa. amaana sax booy boo teeloo ñëw mën nga ko. mën nga ko sauver sauver. maanaam jël ko yëpp sa oto yóbbu. Mm-hmm. wala nga woo ambulance mais da ngay gis mbëkk nga nit ki peut-être guddi la. te ba ko fa. te boo demee da ngay travailler à vie. Ah, am na loo xam seen bopp bakkan dafa fort dafa fort. bakkan nit nit mënul mënul mënul rey nit ni comme ça am conscience normal quel que soit alpha toogal nga assumer lu mën a xew dana am dana am lu dem ci yow assumer lu dul dara sax mbokki njaboot gi mbokki mbokki mbokki kalooru euh, au moins dina am lu mu leen teggi waaw am lu mu leen teggi dëgg la man sama mag sama mag bi bi gaañ ci accident accident ba mu nekk taximaan ba ba ka dawal ba mhm. bi ñëw na mais c'est parce que yoonam nekku ci. Hmm. yàlla ko jaarale foofu. da ko rek. mais ñëw na moom ngi dawal dara jotu ko. sa mag moo ci gaañ. mais sax. mais assumer. wala non xam nga sax xam nga dafa am nu ñu tuddee homicide volontaire ak homicide involontaire mm-hmm. c'est pas parce que dara am na rek forcément jàpp nga ne yoon waaw daf may tëj ak yooyu déedéet mm-hmm. yoon dafa am nuñ ko tëggee. du dañuy tëb rek ne waaw diw yow yaa def déedéet. Mhm. parce que police ak gendarmerie dañuy def lu ñuy tuddee enquête préliminaire. Mhm. parce que loolu c'est sur la base ay indices dégg nga. Mhm. ak yenn yi ñuy am moom la ñuy dajale. su boobaa nag nga ñuy doog a définir ne nit ki yow te yow yaa def wala da nga def ak sa teyu bakkan. wala defoo parce que. du tayef du tayef du tayef kon donc. dañuy jël suñuy responsabilité aussi ci yenn yi loolu dafa am solo ba mm. bu bakkan faatu bakkan faatu bakkan daa fort loo xam ne ne kenn mënu ko remplacer bu amee da ngeen di taxaw jël seen responsabilité wax nii la demee ak nii ak nii mm-hmm. bu defee mu bu leen ci yoon di topp parce que jàpp na ne am ci laale ngeen après en tout cas na bu fa bu waaw. na bu métti am ñaanal euh, man a ñuy ñaan. nuyu baax a baax sama benn xarit. Njoona Laay. séeréer Njoona Laay. <laughs> mi ngi dalax. waaw man nuyu baax a nuyu de. ma jaaña ma jaañ Jéy ben benn xarit. may laa ñu ngi koy mu def lu am solo. ñu jox ma solo lu bare bare ma jaan jéey ma koy nuyu baax a baax. jéey jéey compagnie solo. may nuyu baax ma jéey ak Moussa Jéey mi nga xam ne mooy borom KMC. yëf yi nekkul ne boo ko ma jaan yàlla na yàlla fay. un million wala deux millions. déedéet yëf daanaka waa ginnaaw raay gépp moo leen jox soble. macha allah wax dëgg yàlla. macha allah lu baax daa am solo ay joxe nag. du ko ñàkk nag moom moom ma jaan sunu bàyyi Abdoulaye Dieye yal na yàlla guddal fanam Imaam Dieye. amiin Serigne Bouna Kounta lool macha allah ma koy nuyu. waaw waaw waaw moom jërëjëf kontaan naa yal yàlla fay na ndànk meewaan Kounta Sidi Maxtaar. kon bu ko defee ñu ngi ñaan. Mm-hmm. yal na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin amiin amiin. ñi tawat ñi yal leen suñu borom. fëgg seen bopp amin amin amin waay ñi caabi féete gannaaw yan na leen yàlla dimbali ñu gaaw a génn amin képp ku am problème mu dépense yan na la yàlla jox dépense amin képp ku am problème it noonee kazalika yan na ko suñu borom saafara amin amin yàlla mi am jàmm te ku mu jàmmal ku ne nga am jàmm yan na ko yàlla suñu borom wissi askanu sunu gaal bu ko defee ñoo fi jaaroon à demain ba allah Thank you.